mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey ma am mbégte ñëwaat ak yéen ci seen émission solution bu am solo lii nag benn xale bu góor la xale bu góor bi nee na moom yàlla dafa def a mu doon liggéeyal benn meer mais nee na bi muy liggéeyal meer bi mu daal di liggéeyal meer bi liggéey bi nga xamante ne loolu la ko meer bi santoon ginnaaw bi ñuy waxaale pour mu liggéeyal ko nee nag bi mu ko liggéeyalee liggéeyalee ba weer bi daa dee nee na mu topp ci meer bi pour na ko meer bi fay nee na maire bi di ko dawloo nee na am na ci boo xam ne sax maire bi dane ko demal boo demee bala ngaa egg sa kër dinaa la wéef xaalis bi nee mu dem mais maire bi mënul fexe ba wéef ko xaalis bi naan ko tey ëllëg tey ëllëg tey ëllëg nee nag dégg fa yàlla mu topp meer bi pour na ko maire bi fay ndax nag liggéeyloo nit ba weer dee nga koy dawloo loolu dara gënu koo metti nee na am bis mu woo maire bi ne ko dama bëggoon nga fay ma sama xaalis ndax nag wax dégg fa yàlla soxla naa xaalis bi nee na maire bi ne ko léegi dama génn nii dem di jënd ay marchandise léegi dangay xaar ba ci kanam bu ci kanamee boo ñëwee kër ga ni ma fa fekk ma daal di lay jox sa xaalis nee nag bi ko maire bi waxee loolu nee na moom it mu yàkkamti heure bi jot pour mu dem jëli lii di xaalisam ndax nag booba soxla na ko nee na bi mu demee mu egsi maire bi ne ko xaaral ba añ ba pare ma jox la xaalis bi nee na mu ne maire bi noo añ kay baax na bàyyi rek ma dem jox ma xaalis bi ma dem nee na maire bi forcé ko téye ko añ fin mu mujjee toog añ nee na bi nga xamee ne toog na ba añ ba pare nag après mu ne maire bi na ko fay xaalis bi mu dem ndax nag comme añ rek la ko téye woon te añ nañu ba pare nee na maire bi ne ko añ laa la téye woon mais sama ay robinet dañoo am problème dama bëggoon nga xoolal ma ko bala ngaa dem nee na mu ne maire bi moom mënul xool robinet yi parce que bu ko xoolee tamit mënu koo defar ndax actuellement ni yorul benn matériel boo xam ne war naa mën a defar robinet yi nee na maire bi ne ko su fekkee ne indiwoo matériel léegi wutal ma solution boo xam ne dinga ma ko mën a ñab-ñabal robinet yi ba ñu normal fii suba moo gën ñuy xel nii nee na nag mu ne maire bi léegi xaaral ma jéem a xool solution bu ma la defal ba ndox yi daal di arrêté nee na nag ci la jëlee décision dem pour arrêter li nga xam ne moo di robinet yi pour ndox mi arrêter ba maire bi mun cee téye noonu ba suba nee na bi mu demee di defar robinet yi defar defar defar ba pare daa di arrêter ndox mi pour maire bi mun cee jàppandi ba suba nee ci la wàññeekoo pour génn pour ñibbi rek daa di ñëw fekk maire bi summeeku ba dese comme ni ko ndeyam juree woon nee na nag mu daal di wax maire bi lan mooy problème bi ak lu tax nga def nii nee na maire bi ne ko dama bëggoon nga sekk ak man ndax man depuis jour bi ma yàlla booleeg yow ma teg la bët ba léegi sama xel dafa nekk ci yow nee na mu ne maire bi moom xamul loolu te bëggul def loolu ndax nag moom dafa bokk ci xeet boo xam ne ñoom dañ leen di tere ñuy def na ko sudul noonu te it bu dul dara sax ñoom moom jullit la bëggul def lenn loo xam ne bu ëllëgee bu ko ay mbokkam déggee dinañ ko ci xeeb te nee na famille bi mu bokk ngandimal maami famille la ñu famille làkkat boo xamante ne dañoo gëm affaire maanaam soo def moyee yàlla dañ koy jël comme ne dangaa def lu rëy rëy rëy te bëggul bis jot mu def ko ay famem dem ba déggu ko di ko ci xeeb nee na maire bi ne ko loolu dara parce que yow soo ma ko defalee fii nii sa benn mbokk du ko dégg te xanaa yow yaa leen koy wax waaye man duma leen ko wax nee na mu ne maire bi ah tey nga ma dimbali rek wax dëgg fa yàlla bugguma benn problème te nee na moom sax xale la musul xalaat ci àddinaam yooyu dina ko def waratu na koo xam ne depuis ba mu koy liggéeyal ba tey da koy xoolee comme yaayam bi ko jur. nee na nag moment bi nga xam ne mi ngi discuter ak maire bi di saraxu maire bi pour maire bi bàyyi ko nee na bu dee dëgg rek kay dëgg wax dëgg fa yàlla góor bu ne góor nga nee na benn instant nag mu commencé di fixer bi nee na ba xelam daa di commencé ñaaw. maanaam xel mi maanaam yaram bi commencé yëngatu ndax nee na xool yi mu doon xool mère bi te moment boobu meer bi dafa summeeku woon nee na nag wax dëgg fa yàlla comme góor la tamit ak xelam commencé sori nee na ci la toogee ci kaw lal bi nee na mère bi ñëw fekk ko foofu daal ne ko sama doom duma la def dara lu metti damaa bëgg rek nga sekk koog man ndax depuis boobu ba léegi sama xel dafa nekk ci yow nee na nag à fin mu daal di koy sekk ak maire bi depuis jour boobu mu sekk ko maire bi nee na maire bi naan ko sa salaire bi sax dinaa ko yokku nee na nag bi nga xamee ne sekk na ko maire bi mu daal di dem ñibbi nee na après mu daal di jël décision même su ko maire bi fayul sax dootu ko laaj xaalis bi mais mu bàyyi maire bi une bonne fois pour tout moo ko gënal ndax nag moom xamul loolu te it depuis loor fitam bi mu ngi maas ndax ay mbokkam yëg ko nee na ci noonu rek mu toog benn jour ma maire bi woo ko téléphone ne ko dama bëgg nga ñëw nga defaatal ma li ma defaloon keroog nee na mu ne maire bi non non man koy ñëw ma loolu moom bis ni ki tey pare naa ci nee na maire bi daal di koy menacé ne ko boo ñëwul yor naa sa vidéo te sa vidéo bi dinaa ko publier bu ma ko piblier say mbokk dinañ ko gis nee nag bi ko maire bi waxee loolu demul mais dane uniquement na ko indi émission solution pour que nit ñi jàppale ko ci ci solution nan lay def ba maire bi ci boppam du publier vidéo yi mu wax waaye nag comme li ko DG wax rek maire bi gëw ma ne yor na sa benn vidéo ndax nag maire bi mënula vidéo te moment boobu yéen ñaar yéen a nekkoon ndax su la vidéo wee moom tamit day génn te amul intérêt benn di publier vidéo boo xam ne moom tamit yaramu neenam mi ngi ciy feeñ kon d'après daal analyse kon maire bi yorul benn vidéo am dafa bëgg a nax xale bu góor bi pour piéger ko léegi nag xale bu góor bi nee na moom da ko indi émission solution pour ngeen jàppale ko yéen tamit lan ngeen lan moo ci seen xalaat demul moom ndax maire bi menacé na ko ndax ay vidéo mais demul seen xalaat daal la bëgg ngeen dimbali ko ci solution nan lay tàqalikook maire boobu ndax nag moom wax dëgg fa li muy tiit mooy magam bu góor bi mu nekkal rek kooku kilifa la te doxul daray caaxaan bis bu yëgee ne mi ngi sekk ak ay mag ba ñu koy chantage mun na ko cee créer nga ndimal maami problème ba tax na tey mu daal di koy indi solution pour ngeen jàppale ko ci solution ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali ni suñu ngóora naturel bu am solo bii wax naa leen ko mu nekk suñu ay gàncax yoo xam ne ñu ngi ko defaree ca Casamance yenn gàncax yi ñu jëlee ko ca fuuta daal di koy boole nag def ko benn poudre bu am solo boo xam ne dafa baax ci góor boo xam ne dafa néew kàttan ndax nag ngóora naturel boo nekkee góor bu néew kàttan boo ko jëlee yàlla mun na laa dimbali nga jotaata sa kàttan bu a baax a baax te nii ngay gisee sachet bi mun nga ko utiliser dix fois parce que kuddu café ngay jël daal di koy booleeg ndox xóoyal naan te it amul la benn effet secondaire boo ko naanee daal lu dul yokk sa kàttan ci bu naturel loolu rek la la ngóora naturel di def ngóor naturel bi nag ku ci bëgg dangay woote ci 77 531 25 vingt 77 531 25 79 bu ko defee nga daal di am ci ngóor a naturel bi ci ay prix yu xéewale ay ca mi ngi noonu di jaajëfal bu baax a baax kana satulaa koréen moo nekkoon ci caméra bi nuy suñu DG Sey Latir nuy équipe bu technique bu Thiès Info yëpp ak mbokk internet di safoo lii di émission solution di ko bàyyi xel saa su ne ñu leen di bu baax a baax di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneeni solution d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Télé Sénégal Info